diggante Libidor bu Nguñaan ak Boy Faye Libidor ngeen jàkkaar lool Boy moo la woon ginnaaw Libidor bu Nguñaan ak Boy Faye ngay lewaatee mbokk yi ñu ngi ci journée Diaks production fii ci terrain gaal gi Libidor Boy Faye le 16 ndeysaan 2020 Libidor Boy Faye Libidor bu Ngunjaan ak Boy Faye Boy Faye bëgg naa jàpp Libidor daanaka daa mel ni daa bañ ña xoolante wàllu wee yaa ngi fi waaj caaka fay ak pakala bu kër mbay faal cey làmb ji li door booy fay caaka fay ak pakala pakala bii nag du pakala bu mbuur kii moom mooy pakala bu kër mbay faal mën nañ ne pakala numéro 2 la li <laughs> mu door daw na jël booy fay Libidor jël na ko Boy Faye bañ na Boy Faye bañ na ñoom ñaar ku ci nekk am na lu mu naral sa morom Boy Faye Libidor wàllu wi Adama yaay caaka Faye ak Pakala numéro 2 wala Pakala bu Mbay Fall Pakala daw na jëli caaka lu nar Pakala jëli waat na ko. lu mu nar ndaysaan Pakala jëliwaat na Pakala daa bëgg jeexal combat bi lu nar Pakala koy forcer Pakala bu Mbay Faal ak Caaka Fay lu nar Pakala da koo bëgg njaay ko doole moytul manuel ba moytul manuel ba génn nañ saako yi déedéet daw na jëli ko caaka am na tànk ba da daan da daan doo ci génn doo ci génn pakala doo ci génn caaka da daan caaka da daan da nax ragalu day mel ni ku ragal te ragalu la fay lu mu nar caaka lu mu nar caaka la wër na ndomba pakala fay dem na final daan na pakala bu góor mbay faal hee Caaka Faye oh moytul ma biram kuk kuk day mel ni ku la ragal ta ragalu la Boy Faye ak Libidor Libidor bu Ngunjaan ak Boy Faye <laughs> ay Caaka dem na final pakala respecté woo Caaka Faye moo tax daan na la jël bu loo bu loo bett Pakala bu Caaka Faye éliminé na ko demi-finale Boy Faye ak Libidor bu Ngoundiane ñu ngi ci demi-finale yi ñoom it ku daan am Caaka Faye Boy Faye Libidor Libidor bu Ngoundiane ak Boy Faye Libidor bu Ngunjaan ak Boy Faye Babacar borom Leewtoo maa ngi lay nuyu sëñ Babacar maa ngi lay ziar. naa la ziar jiili. ndeysaan bi caaka fayek gis ngeen ni mu def. maa caaka ak Libidor. ndeysaan gis ngeen ni mu ko def. daan na ko jël da koo wër ndombo. ndeysaan da koo wër. fii nag yaa ngi fi am Boy Faye ak Libidor bu Ngunjaan. Ngunjaan waaw noonu la demee. cey làmb na nga ca Babacar waa làmb jee nu mu demee waay caatu yoo daan sa waay jëli bu daan na ko ca kaw la ko tak xatar bi ko ànd moom tël ko jël lu la ko daan daan Caaka Fay dem na final Libidor bu ak Boy Fay arbitre bi sifflé waat na Libidor Boy Faye Boy Faye daa mel dox ci koom ña nga ca Boy Faye jàpp na Boy Faye jàpp na Boy Faye jàpp na Libidor jël na ko da koy plaqué bañ na. wey weyale mu wey. mu wey. weyale mu bañ mu bañ. ndeysaan. day làmb. Adama de daa benn baara la dese. arbi bi sifle waat na ndeysaan booy fay ak libidoor bu ngunjaan booy fay libidoor libidoor bu ngunjaan ak booy fay Libidor bu Ngunjaan ak Boy Faye Boy Faye jàpp na lu mu bëgg lan la nar plaqué daan na ko Boy Faye daan na Libidor eh Boy Faye daan na ko Babacar Boy Faye daan na Boy Faye Thiaka retour Boy Faye Thiaka Faye daan na ko aller retour àll ba Boy Faye Thiaka daan na ko aller retour demoon na final. dara yombam déet kaay Boy Faye daan na Libidor solal na ko casquette ju kaay kaay lamb la. ndeysaan Boy Faye maa ngi lay siyaar. ñu ngi lay delloo siyaar bu wér. nga dem final tay fii ci terrain gaal gi. na journée Jaks production ban yëg-yëg nga ci amaat. sant yàlla rek santaat yàlla rek comme d'habitude comme niñ doon santee di ñaan yàlla ànd ak ñun rek ci bari Seydina Mohamed. Thiaka Faye bëri ngeen ñaari yoon fi mu éliminé la. tay ngeen dajawaat dina yomb. ah yal na yàlla ànd ak yàlla moo yor ndam yal nañu yàlla may ndam. kaay. Birama Ngok Adama. Birame maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. ma fekkoon la fii nga finaalu ma fekkaat la fi nga finaalu tey macha allah ma fekkaat la fi nga finaalu ban yëg-yëg nga am. waa kontaan rek di gërëm yàlla di ñaan yàlla may ma ma gañewaat final bi comme d'habitude. Boy Faye da ngeen ñaari yoon nga daan ko tey di seen troisième fois mu ne du yomb loo gis. waaw ñaan yàlla mayaat ma ma daan ko rek. nga ma waxoon. waaw parce que moo am du mon warsek la rek. waa damay ñaan yàlla mu doonaat suma warsek. Ah. Manuel moom daa da nga koo génnee ci 2020 bi lu xew. waaw parce que 2000 bi la 2020 lañ nekk moo ta at bu bees site nag. Manuel loo séq ak moom. waaw neex ma rek. ma entraîné ko ba moon ko. waaw. merci beaucoup. mbokk yi bi sifflé na. final baa ngi noonu poids lourd dox ci diggante Thiaka Faye ak Boy Faye dimanche 16 terrain gaal gi Diaks production moo ñu fi woo mise bi un Caaka Fay moo moo leen féete ndi ngemboo ngemb lu ñuul li Fay moo leen féete càmmoñ ngemboo ngemb lu ñuul li moom it Fay Caaka Fay waxoon naa leen ko final bi ñu weesu ne woon naa leen Boy Fay Caaka Fay ku seetaan dañ la koy may ci Wassare Lamb mbokk yi seen mbégte rek mooy suñu bànneex lépp lu ngeen bëgg Wassare Lamb dina leen ko dégtal ci anam bi ngeen ko bëggee ci anam bu set bu sell Boy Faye daw na jëli ko Boy Faye daje na ak caaka ñaari yoon mu daan ko tey mooy seen ñetteelu yoon bi seen ñetteelu daje baa ngi noonu Boy Faye daw na jël ko lu mu bëgg daa décidé caaka bañ na caaka bañ na Boy Faye moytul manuel bi caaka yor na manuel bu garaaw waaye Boy Faye ci tànk ba la jëm cey làmb booy fay caaka fay ku seetaan wasaare làmb dañ la koy may waaw waaw may gërëm bu baax a baax a baax sama xarit ba Babacar borom Espagne séeri mama bàyyi liyaa ndeysaan booy fay caaka fay ñu ngi noonu ci géew bi ñoom ñaar cey làmb Boy fay Thiaka fay Boy fay Thiaka Faye bienvenue à Serigne Diop ndeysaan Serigne ñanga yegsil jàmm ci réewu jàmm caaka fay ak booy fay mbokk yi ba tey ñu ngi ci Leewtoo bi ñu ngi ci lewaatoo bi ñoom ñaari xale booy fay lu mag di doon def ba dee bu dekkee ba ko lam doon def caaka ñàkk koo jox cër tey jox nga ko cër bu mat sëkk caaka nii lay bëree lu mu nar jël tànk ba wala déet booy fay koy bu ma wax moytu plaqué bi moytu plaqué bi booy fay daw na jëli ko. ay Boy Faye lu mu nar ci diggan ak Caaka Faye Boy Faye daw na jëliwaat ko Caaka bañ na arbitre atte Caaka benn avertissement waaw waaw Caaka bëre woo da taxaw bàyyi koog làmb ji Boy Caaka Caaka Faye Boy Faye mbokk yi ñu ngi noonu ci final bi poids lourd terrain gaal gi Diaks production moo ñu fi woo Caaka Faye ak Boy Faye ñoo ñaari xale yi Caaka am na benn avertissement léegi Boy Faye téye na ko di ko déglu avertissement poñ la ndax sa adversaire bu amee ñett avertissement day ñàkk làmb ja booy fay xoolut loolu daw na jëliwaat ko daw na jëli caaka booy fay caaka fay Boy Faye Caaka moytul manuel bi nee naa ko Caaka sànq loo bokk ak manuel mu ma at bu bees ma jël manuel jàng ko ba mu mokk mbër mu ma jàpp def la ko daw na jëli ko mu bañ Caaka Faye Boy Faye Caaka Faye daw na jëli ko tër na ko Boy Faye bañ na lu mu nar tàqalikoo na ñoom ñaar booy fay caaka caaka fay booy fay caaka daw na jëlaat ko booy fay tëru ko ñoom ñaar a ngay joxe arbitre bi àtte na jeex na arbitre bi ngi waaj a sifflé waat ah. eh arbitre arbitre arbitre arbitre. arbitre bi sifflé moo la wan ginnaaw. Thiaka Faye ngeen jàkkaar lool. mbokk yi Thiaka Faye am na benn avertissement léegi. Boy Faye amagul benn. bëre nañ ñoom ñaar ñu ngi ci deuxième période bi Caaka Fay Boy Fay Caaka Fay Boy Fay Caaka Fay Boy Faye lu mu nar mbaadu da koo bëgg a génnee lang bi caaka jëlaat beneen avertissement wala déet caaka fay Boy fay caaka Boy Faye ñu ngi ci bët ñoom ñaar di leetoo Caaka Faye Boy Faye ña ngay xoolante ci bët ñoom ñaar combat bi narul gaaw combat bi narul gaaw diggante Caaka Faye ak Boy Faye lamb ji narul gaaw Caaka Faye Boy Faye Boy Faye jàpp na ko booy Faye téye na boppam ndax Caaka am na avertissement jël na tànk ba Boy Faye bañ na dox na ci koom Caaka ngi téye ci koom Caaka da ko bëgg a mu dem mu jël tànk ba bi koy daan bi passé nii la ko daane woon tànk ba la jël Boy Faye bañ na Boy fay bañ na Caaka jëlaat na ko Boy Faye avertissement waaw waaw ñoom ñaar ku ne am na benn ñoom ñaar ku ne am na benn Boy Faye daa taxaw Caaka di attaqué ñoom ñaar combat bi du yomb Caaka fay booy fay combat bi du yomb mbokk yi Caaka Fay Boy Fay du yomb Caaka Fay Boy Fay Caaka Fay Boy Fay Caaka Fay Boy Fay Caaka Fay Boy Fay Caaka Fay Boy Fay jàppante nañ ba tey caaka daw na jëli ko booy fay bañ caaka fay booy fay caaka fay booy fay cey làmb caaka daw booy fay daw na jël ko daan na ko booy fay daan na caaka fay booy fay jël na final ba booy fay daan na caaka fay booy fay daan na caaka cey làmba ngi noonu ndeysaan booy fay ngay tekki sengoor Adama moo finaalu ak caaka fay fii ci terrain gaal gi daan ko Jackson production moo ñu fi woo mise un million la ku nekk ngi wax làmb ñëpp ay entraîneur lañ fay fay daan nga tey jël final bi fii ban yëg-yëg nga am. awuzu bismillah inna wali yàlla. ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci bi sant Serigne Touba bu wér. di wax allahuma inni as'aluka bi anni as'aluka annaka anta allah laa ilaaha illa allah anta ahadu samadu allazi lam yalid walam yuulad walam yakul lahu kufuwan ahad maa ngi santaat yàlla bu baax. di wax ne xaw ma dara ndaw laa rek. mënuma ko yàllaa ma jox lamb ji. waaw ñun mënante wuñ daanante. mooy tax may bañ kañu bi. bu yi kañu ñun ñëpp benn lañu. ndax Sénégal dana fi jàmm wàcc. waaw. <laughs> sama mag sama bi dafa am lu mujjee wax ak man moo tax quoi yàlla baax na. waaw daa am lu mujjee wax ma ak moom ci biñ mujjee ñàkk làmb ji mujj ci caak mais yàlla baax na quoi. nañ ko côté. wax jooju am na kot quoi. di sant di sant yàlla di yërëm di yërëm di yërëm sama yaay bu baax a baax a baax di wax suma papa fi mu tëdd yàlla na suuf sedd ci kawam. suma yaay dama koy yërëm di ko yërëm di ko yërëm di ko yërëm. man amaguma lu ma mën a neex ci àdduna yii yëpp mbiru àdduna la mais sama yaay bis bi may njëkk dox gis mu dox tàlli ñaret loolay sama fierté ci àdduna mais lii nii nekkul sama fierté ci àdduna mu ngi dëkk ba toog moo tax rek may rey sama bopp du pour kenn ak suma soxna eh, kese bu dul loolu wax dëgg kenn taxul may sonn nag waaw su ma woy wi rek di wax nag naan gars yi supporters yi man man ñoom laay bëgg parce xamul tax dama bëgg di fecc di yëngal muy neex ndax ndam ndam ndam décision suñu borom la man ma sam bopp ndam mais nag toujours ci bëggal leen laay def ba leneen di ma dal nañ may comprendre ci làmb ñoom nañ ma comprendre ñëpp kii bëggee booy fay bëggee naa la siyaar naa leen bëggee naa leen ñëpp di wax encore une fois jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Serigne façon bëre bi nga bëreeg booy fay façon bëre bi nga bëreeg caaka a fii mu daan la tey façon bëre bi nga bëre ak moom téye ko ba combat bi yàgg diire nga daan ko ci am ci ndam façon bëre bi. waaw ñun ay xale lañ li rek. dañoo tukki woon dem wuti woon doole ñibbisi nañ liggéey bi nee naa la tuuti moo ci feeñ li ci des a ëpp quoi yàlla baax na lu li ñuy gën a dem rek suñu borom di ñu gën a won caaka champion bu mag la kenn gënu ko doon champion nekk na équipe nationale nekk équipe nationale sama waay la suma nit la nit ku baax la moog mbëru làmb yëpp ñoom ñuy daje simple ñëpp ay borom baax lañ bëggee naa ñëpp mënuma fi kenn yàllaa dogal ma jël làmb ji rek waaw loolu la wasalaam